jërëjëf Yankaw Junior thanks baas waaw waaw xam nga nag mois de mai bi weekend bi dafa fees dell. waaw parce que le 18 incha allah Ousseynou Laay mais mooy ñëw ci diggante Rëm ak Mbacke Faye waaye le 19 aussi tamit Fallou Ndiaye mooy ñëw ci diggante Diop 2 ak Sita bu Ngor waaye le 20 incha allah Momo production mooy ñëw comme promoteur yëpp ñun ñëpp ay nawle lañ ay xarit lañ wax dëgg yàlla ànd bi rafet na trop. Fouta production maa ngi lay nuyu baax a baax a baax. mënoo leen bàyyi seen jàmm di ñëw maa ngi lay ziar. Amour Anta ñu lay delloo ziar. Adja Ronaldinho nuyoo eh Yankaw. santaat bu baax a baax suñu ñaari waajur te ñaanal sumay ñaari waajur yàlla leen yàlla yërëm jéggal leen taxaare na ajana ah boo leen jullit képp ku leen fa fekk ak kuñ fekk di ñaanal suñu papa Gaston yoo xam la wàññee ko yàlla yërëm ko jéggal ko xaar ko ajana di nuyu saal bi yëpp di nuyu Modou Baye Fall di nuyu képp ku fi teeroo ñu ngi lay siyaar bu baax yankaaw siñoor waa ànd ginnaaw baatu onze billah bismillah ina wali yàlla di wax jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe borom Tuubaa jaaraama maam si Ibrahima Fall lamp bu Baabul Muridiina ginnaaw bi ñu sant a julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax di leen ñaanal ñu yàgg fi loolu te wér di ñaanal suñu papa père Gaston Mbengue na ci làmb yàlla na ko malaaka yërmande teeru yàlla na dee nekk na fa laayam njaboot gi mu fi bàyyi yëpp yàlla na suñu borom def barke. amiin di nuyu waa saal bi yëpp waaw suñu mbokk mbër yëpp maa ngi leen di nuyu sama promoteur Modou Baye Fall di nuyu Anaconda Boy Sey 2 sama mbokk mbër yëpp. yaa ngi nuyu sama père Bada Dione. di ko siyaara di production di nuyu Fall Yaram mi ma tamit maa ngi koy siyaar baax Cheikh Mame Saliou maa ngi koy siyaar ak yaroo baax di nuyu sama mafia bi ma àndal nag dama génn tey benn télé ñu def délégation bu doy waar ndeysaan mafia yëpp ku ci mel ni Kébé borom dëru yi ndeysaan def ko mafia cag-cag yi asalem yi kenn desul mafia xayma ga waaw di leen siyaar bu baax baax di ñu ngi may wax ni léegi lan moo la boole ak Yankaw balaa nga si dem goo fay xam nga xam nga Ronaldinho footballeur kii moom la tuddee boppam mais mais li nekk ci di ñëw footballeur ci football yëpp a ngi si moom noonu la mu mënee football mais bëre moom day day ci biir bëri dafay créer action ci biir bëre daan na daan na mbër ci loo xamante ne da doon foo ba daan. Ndiasse. jël sa Iba Mar waaye kii muy dajeel yankaaw moom man tur bi ma koy woowee bëgguma ko wax si tele bi. Mhm. ndax daf ni mu dangereux. xale la boo xamante xale bu mën a bëri combat boo xamante ni combat bi yaakaar naa ne ci journée bi maa ngi wax sànq combat Darso ak Baye Fall hmm. waaye bii gëw ma ci am combat bu ko dàq. combat bi dàq saison bi moo ko bëree gum ren. diggante ma bébé guy gi bébé guy gi. ok waaw. acca bisimilah xamante ngeen j'espère xamante ngeen yéen ñaar ñëpp. <laughs> <laughs> li ñuy wax si moom rek bëriwul daanaka laa ma ji li amaana wax ju ndaw wax lu ndaw rek jëf lu bëri moo am solo kii kii du bëreex man kii ni ah. ngorom ak fitam ak jomam sax mooy ko mi bëreex man non loolu du ma wax borom jom som bisi daam borom jom yi ñëwaa mu ne du ma bëreek moom tey taqi ngeem luy dugg ci àll bi bëre di sama métier ñu luloo mu lul jom som bisi daam lamb rek a may ndee Fall da ngay bëre de lamb ji dafa taxaw ñu ne top 5 day am gan ah. mën a bëre laay jiñ bañ ko jiñ mën a bëri bu commencé kenn ñu koy jiñ top 5 laa koy dugal te damay paree sama bopp. ko lay paree moom gëmul lool. Hmm. billaay barki yàlla gëmul lool. non gëmul lool ki amul fit dëgg dama la fitam ngorom may jomam mayu ko muy paree. yoo xam ne ki maa daa xibri tax yow xam nga loolu. mille fois bu mu tudd mën a bëre damay tàngaloo fii. dañ dal baaxul dañoo tombé fi nga xam ne Fall Yaram Sa Touba Sambou la grand marabout saraxu wërsëg yi dañ ma ko saraxu wërsëg yi dañ ma ko dañ ma saraxu wërsëg yi mbas ñuy daanu yooyu noonu ay mbas yi ay di xëcc mu def karab bi sama nijaay Bas Faye maa ngi koy nuyu moo jël réew mi toog muy dox jeex na amul mbas de jàpp dëgër wow kongu bëreel moo tax nga am ndam bu ñu bëggee làmb ji neex bu mu réere mbir na ma gëstuwaat pour xam ma quoi. ko loolu lépp seetaan naa ko fa mu fekk mais bu dëgër boo kong bi bi nga xam ne àpp bi jot na Baye Fall yónni ko yaakamti ko mu takk laxasaay bi war a liggéey li ci kanam yëpp dañ koy vaar. ba muy ba muy daan réparé ba muy daan fils de salo ba muy daan Seex Kayma. Mor Mbaye waaw ah. nee naa ki bu bëggee làmb ji neex bu mu mënee mbir na ma gëstu ba xam may kan. bu la xamul. moo xamul làmb ji du neex. donc damay bi ma jaaraax ay moroom. Ikrim nga mujj de. mbar si muy bañ laa koy def. da nga waaw moom Ikrim nga mujj de Ikrim. écrin ba ah, laa mujj jàpp seen kii njaakaar duma ko ba muy xoolee benn bët arbitre bi daw àndax moom wax naa ko làmb ji moo yengaw junior la te man du ma bëree ku dul ndaanaan du ma bëree ku naa làmb nangulul man jàmbaari laay bëreel xam naa la bu baax mais dama bëgg a bëree jox ko mu bëree delloo ma te jàpp naa su ma bëree du ma jox su ma bëree mu jeex waaw dama bëgg ñu ñu bëree làmb ju amateur yëpp di wax dañu dafa taxaw ñu ne top 5 day am gan mais bëgg mu jeex ñu wootee moo moo daan dama lay wax ñaar ba ñett kii bu dee bëre maa ko dàq bëre. man bandi laa. bu dee fit maa ko fit. man bandi maa ko bu kan. kan nga ko ak sàppali. baasa dem géej gi bu ñëw nga lay fit. barke alxuraanu karim maa la gën a làmb foofu. li ma non déglu ma ma wax la nee la man. woote waay. yow yaakaar woon ci làmb mu nga doon taw heure bi ñu ñuy fii sama nopp baa ngi bëgg billaahi. jërëjëf. ñu di ñëw kaay di ñëw wooteel. kontaan naa alxuraanu karim xale yi ma yónni yaakam di ma. di ñëw da ngay yoon ñu ma. man lu ko lebal dama koy fay. bu baax. yow yaa may téye. jërëjëf. waaw waaw. kaay leen. may leen ñu woote. moomoo eh, eh, eh, woote. woote mu jeex woote jàpp si rek temps baag ma ko. guddi na kon ni ko Modou Mbaye waxee compréhension mooy am rek te xam ne tamit doon jot mënuñoo wax lépp mais dinañ wax xaaj bi parce que amuñu lu dul ñu am combat suñu ay nit jàppale ñu bismillah bu ñu woote dañuy woo ku mel ni tey Lamine Diop moom laa njëkk parce que tey su ma demee ba doon bëri yàlla moom la maa ngi woo si combat bi mu jàpp si mel ni Mbaye Ndiaye am li président ASC Thiawlène maa ngi koy woo mu jàpp si combat bi bu baax a baax Thiawlène laay commencé sama mbokku lébu yi di woo fukki penc ñaar yëpp bawuma kenn nañ génn jàppale su ma jógee foofu dem Colobane Guy Mouride fa nga xam te fa laa nekk tey su ma demee ba doon mbër tamit yàlla ñoom la kon maa ngi leen di woo di woo tëngee jëpp bawuma kenn di sandaat bu baax suñu waa écrit du woo ku mel ni Seygo Ndoy dañ ñëw jàpp si combat bi ku mel ni Abdourahmane Diouf monsieur le ministre maa ngi koy mu ñëw jàpp si combat bi mel ni Cheikh Modou Gueye barki démb rek am na nu def sama copain douanier maa ngi koy sant bu baax moom tamit pareegul ku mel ni Papa Tam sama copain maa ngi koy sant bu baax moom tamit ñëwagul Silibé maa ngi koy woo Iba mécanicien maa ngi koy woo bu baax a baax mu ñëw jàppal si combat bi maire Diamniadio bi maa ngi koy woo mu jàppal si combat bi parce que mais tamit Modou may ñu rek ñu am luñ matale waaw mu ñu jaar jàll di woo sama mbokku lébu yëpp di santaat bu baax sama staff aw ma seen fay maa ngi leen di jéggalu ku mel ni Socé Gueye maa ngi koy baax a baax a baax mu Moussa maa ngi koy jéggalu Talla Sylla maa ngi koy jéggalu Arona di woo sama gars yi ngañ gi ma fi a dagg sa yaram sànni bi maa leen di woo ñoom ñëpp ñu ñoo jàpp si combat bi di sant sama famille bawuma kenn góor a jigéen ma nga xam ndaw di woo tëngee jëf kii arbitre bi béykat bàyyi kii dama koy defeere sax moom eh, ayca jërëjëf ñoo demal toog deux heures demal toog ayca booy deux heures jot na presque doy na ayca booy wooteel mu gaaw ñu dem waaw di nuyu waat tamit ku ci mel ni Momo Ngom nga xam ne ndeysaan day bëggal xanu lamb yëpp di ko ñaanal papaam yàlla na ko suñ borom fëgg boppam delloo si ko si njaboot gi di ñaanal ma ko njabootu lamb ñaaw di nuyu mbayang lum di nuyu tamit waa bool képp kuy bool bool ak maa lay nuyuwaat di la woo ci làmb ji nii su ma limee damay jum bawal bool yëpp maa leen woo surtout sama waa dëkk waa Mbombay juróom-ñaari penc yëpp maa leen di woo tund commune de Ndondol bi yëpp di nuyu waa Touba sama waa dëkk maa leen di siyaare bu baax a baax a baax surtout waa Ndindi ah mafia boobu noonu ñuy ñaanal yangaw di jàppale yangaw jóg tax waa Ndindi Sëñ Fallou maa leen di ku ci mel ni saa Ndindi Galas Drogba Abdou Naar di nuyu sama fans club yëpp nag fans ma jaala maasa SBL a yéen quoi gis naa taxawaay bu baax a baax a baax jaajëf mafia yokkal ma jaale bi mafia bu dëgër bi gis naa seen taxawaay mafia café gi gis naa seen taxawaay bu baax a baax a baax a baax a baax a baax temps bi moo ko mayewul rek waa di woo ñi xam ne tamit laabu ji ni laamu amateur la te ko yor sa billet téye ko la fin mai bu leen ko jaawale li du laamu coole dama bëgg ñu ñëw jëndal ma woo nii ñoo si jàpp ku ci mel ni Fallou Fall Touba borom mafia amul yaa xalaate sama grand bi yaa nga si jàpp maa lay wàcc laamu ji baax Moussa Sam daf borom hôpital dalal jàmm maa ngi lay woo ci laamu ji baax Galaw ba maire de Mbacké maa ngi lay woo laamu ji baax a baax di woo maire damaa yor liste jàpp njàngum araam mi lañ ngi waa di wax gars yi ku ci mën a jàpp rek nga ñëw jàpp si quoi. aca moo du liiral ko mu gaaw. man jànguma ngeen may joxe liste. Modou nee na mi ngi woo Grand Mbaye Fall ah. mi ngi koy woo si combat bi mi ngi woo Fallou Fall Touba non attends rek. mi ngi woo euh, alaaji isaa alaaji isaa euh, bu tafaatin alaaji Sarr bu tafaatin mi ngi koy woo mi ngi woo maam Maysa borom borom Brésil mi ngi koy woo si combat bi mi ngi woo Moussa Moussa Yàgg borom borom États-Unis mi ngi koy woo si combat bi mi ngi woo Galaw Ba maire de Mbacké si combat bi mi ngi woo Edouard Edouard jon mi ngi woo Edouard John maire de Ndondal ci combat bi mi ngi woo Serigne Maysa sek ci combat waaw c'est bon Modou. doy na waay mi ngi woo Abdou Aziz Ndiaye ci